القائل في محكم تنزيله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله فحسى أولئك أن يكونوا من المهتدين والصلاة والسلام على إمام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وبعد العدالة في الإسلام hiya awalu qiimatin kubra naadaa biha falam takun hunaalika cadaalatun mumaathila fi ayin min alxadaaraati alsaabiqa fi lislaam fa kullu alxadaaraati kaanat tuqassimu annaasa ila saadatin wa abiid wa xuquuqu saadati taxtalifu ixtilaafan kulliyan an xuquuqi alabiid fa min xaqi sayidi an yastari aw yabiixa alabda aw yaqtulahu doona muxaaqabatin min ahad wa dalla alwadu ala hada alxaal ila an jaa alislaamu fa xarara alabida wa ahtaqa riqaabahum wa wada wa wadaa usasa alxadaalati alijtimaaciya bayna annaasi jamiican bi qaddi annadari an addiini aw allawni aw aljins faaqu alkaraamati makfuulun liljamiic doona tamyisin bayna rajulin aw imraa aw ba aw bayna ganiyin aw faqir fal islaamu xariisun kullal xirsi ala an yajida al muslimu maa yakfiihi haddal kifaaya min qóoti yowmihi ida maa quurina ala maa kaana yaxsulu alayhi al insaanu qabla al islaami wa huwa maa yucrafu bi haddil kafaaf ay maa yasuddu ramaqahu faqat والعدالة الإسلام والعدالة الاجتماعية من الموضوعات من الموضوعات المهمة التي يجب على المسلمين أن يسعوا لتحقيقها وعندما ننظر إليها من المنظور الإسلامي نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسعى دائما لتحقيق لتحقيق التكافل الاجتماعي وإراحة الناس من المطاعم fa innama kaana yaati ilayhi rajulu min almuhaajirina laysa lahu ahlun wala maal kaana yatalubu min al ansaari musaacadatahu kama kaana saxaabatu radiallahu anhum yaxrisuuna ala it'aami kaana yatlubu min al ansaari musaacadatahu kama kaana saxaabatu radiallahu anhum yaxrisuuna ala it'aami sawi alxaajaati walmasaakin wala yatrukuunahum illa bacda ishbaahihim wala qad balaga min xirsi omar ibni xataab radiallahu taala anhu ala taxqiqi al adli wa irahati nnaasi an qaala wallahi law xasarat baxlatun fi lxiraaqi la suila anha omar waqad qaala anhu rasulullahi salallahu alayhi wa sallam inna allaha jaxala alxaqa ala lisaani omar ala lisaani omar wa qalbi ومن أوجه العدالة الاجتماعية التي يجب على المجتمع تطبيقها أن يكافأ المتميز والمجتهد في جميع المجالات للنهوض بالمجتمع فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكافئ الفارس في الغزوات ويعطيه ضعف ما ياقصه المترجل fa asamatul islaami tatajalla fi tatbiqi al adalati al ijtimaia xatta shaaru bi adli al xomarayni xomar ibni xataab wa xomar ibni abdil asiis radiyallahu anhuma fama ahwajana an nataassa bi salafina saalix wa nasira ala nahjihim wa darbihim fi isaali alxaqi li ashaabihi wa nadriba bi siddatin ala aydi l mufsidina xataa yumakkana taxqiqu aladaalati al ijtimaahiya al manshura wa yasuuda al istiqraaru wal amaanu ruboa bilaadina wala yajrimannakum sana'aanu qawmin ala allaa taadilu iadilu huwa aqrabu li taqwa yaxfiru llahu lii wa lakum wa li saa'iri almuslimin alhamdulillahi almahmudi fi ardihi wa samaa'ihi almashkuuri fii fiihima biljammi min nuhamaa'i wa salla wa sallama ala xayri mabxuusin linashri alxaqi wa tayyi albaatil sayidina muhammadin waabili alxayri alhaatil wa ala aalihi wa saxbihi alladina sayyaru jiida alshirki sharra aatil alladina badaru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 tawxiiduhu wa idaamatu shukrihi wa sanaa'ihi wa siyaanatu wadaa'ihi wa iqaamatu sharaa'ihi fi awqaatiha almaaluumaat wa hay'aatiha almawuudaat ala wafqi sunnati shaari'iha almardiya fi kulli bukratin wa ashiya waxtasimu bi hablillahi jamii'an wa laa tafarraqu wa iyaakum wa mubaarasata alwaahidi alqahaari bilxisyaan biqtihaami manaahihi aw bi istixfaafin bi awaamirihi fi lawaan aw bi muqaabalati baadikum baadan bilzulmi wattugyaan yaa ayuha alladina aamanu laa tattabiu xudwaati sheytaan wa man yattabi xudwaati sheytaani fa innahu yaamuru bilfaxshaa'i walmunkar wa fi lxadiis laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axiihi maa yuhibbu li nafsihi rawaahu albuxaari wa muslim wafaxana allaahu wa iyaakum li taatih wa atamma taqsiiranaa bi afwihi wa xilmih wa bi xaboorin xasanin taqabbala minna wa minkum bi fadlihi wa joodihi wa karamih amin yaxfiru llaahu lii wa lakum wa li jamiihi almuslimin amin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 wa idaa ra'aw tijaaratan aw lahwan infadduu ilayhaa wa tarakuuka qaa'iman qul maa inda llaahi xayrun mina llahwi wa mina tijaara wallaahu xayru raasiqiin allaahu allaahu akbar sami allaahu liman hamidah rabbanaa wa lakal hamd allaahu akbar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 laa yusminu wala yuxni min juu wujuuhun yawma'izin naa'imatun lisa'yihaa raadiyatun fii jannatin 'aaliya laa tusma'u fiihaa laaghiyatun fiihaa 'aynun jaariyatun fiihaa surrun marfuu'atun wa akwaabun mawduu'atun wa namaariqu masfuufatun wa saraabiyu mabsuutatun afalaa yanzuruuna ila libili kayfa xuliqat wa ila samaa'i kayfa rufi'at wa ila aljibaali kayfa nusibat wa ila alardi kayfa sutihat wa dakkir innamaa anta mudakkir lasta alayhim bi musaytir illa man tawallaa wa kafar fa yu'adhibuhu llaahu al-'adhaaba al-akbar inna ilaynaa iyaabahum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 كلا الله أكبر الله أكبر الله